bu ñu sañoon am CEDEAO boo xamante ni day am doole day day day dekk benn mhm. ba pare te day autonome day autonome ton ñoom seen tantation mooy loolu mhm. jéem a réuniraat ñi génnoon ñu doon benn mhm. mais ñu autonome am indépendant France génn ci européens yi génn si ko bu fekkee ne ñoom mënuñu am loolu ah su booba euh, ku ci nekk doxal li nga xamante ni moom moo la doy. moom moo la doy donc euh, ñi ngi ñi ngi ci logique boobu quand ñoom ñi ngi ci logique boobu. parce que vraiment bu fekkee ni xam nañu mm, àdduna bi fu mu toll. Afrique booloo doon benn mu ëpp mu ëpp njariñ. que Afrique di taxali ko. te mm-hmm. Cheikh Anta Diop waxoon na leen ko bu yàgg depuis avant l' indépendance. Euh, ba ñuy wax par problème de panafricanisme avant indépendance ñoom ba ñu nekk ay étudiants au niveau de la France ay Cheikh Anta Diop ay Houphouët-Boigny ay Senghor ay tu vois Cheikh Anta Diop waxoon na leen ji nga Afrique de l'Ouest yëpp benn administration français moo ko gérer. Mm-hmm. capitale bi nekk Saint-Louis. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi bu fekkee ni dañoo bëgg am indépendance nañoo fexe ba bu ñu taxali ko. nañu continuer ci même logique boobu ànd doon benn ci la ñuy amee doole unité boobu mais bu ñu taaxali ko ku nekk laaj indépendance ku nekk laaj dëkkam su boobaa dañuy saxaar rek mais duñ mës a tàkk mhm. mhm. donc loolu fi mu toll nii moo parce que tubaab bi li muy def xam na ko mhm. gis nga euh, les occidentaux ay ay ay ay ay ay ay seen politique c'est un peu brigande ay ay sàcc de longue chemin waaw muñ muñu sañuy sàcc sa ressource sàcc sa xel sàcc sa foi dañuy sàcc sa ressource bi nekk ci suuf sàcc sa xel sàcc sa foi mhm. mais nag yow amee ah, bon l'homme est un intelligent bu fekkee ni yow yeewuwuloo mhm. mais du du du sa morom moo lay yee mhm. sa morom da lay jariñoo takk la saret yàgg nañu wax ni dëkk yi amuñu xarit intérêt la am. tu vois parce que fi mu toll nii dañoo tardé ci wàllu boppam Afrique dafa tardé ba fi mu toll nii lépp loo xamante ne ñu ngi koy bëgg di ko wax wala ñu koy def foofu ñu xalaat ci France nu mu ko gisee. déjà rek euh, falu Bassirou Diomaye Faye bi ba léegi demagul France. Mhm. c'est une grande première au Sénégal. effectivement si la. et pourtant le président Macron l'avait félicité. waaw ah, mais l'avait félicité mais Ousmane Sonko dégg nga li mu wax démb. waaw ah, effectivement. parce que bañ leen di dóor di leen tëj di leen rey France waxu ci dara. tout à fait Union européenne waxuñ ci dara dañ cee noppi. <laughs> loolu lan la. Mhm. noo koy tuddee lool c'est de l'hypocrisie. Mhm. <laughs> Hmm? te hypocrisie boobu France ci ci la mës sa nekk. xam mhm. mais mosuñu woon am un leader boo xamante ni am na courage taxaw na leen eh taxaw stop taxaw leen. affaire bi mën na yàgg nag mais mënta sax éternellement quand même lana jàngu leen lu ñu jàngul xamu leen lu ñu xamul doole ngeen jaay sunu maam yi ñëw takk leen jaam takk leen saret mhm. mais loolu am na fu muy yem quand même mhm. Hmm? Mhm. Cheikh lan la waxoon compétisez-vous sur la lan sur la science ngeen dagg buubu njéng yi jusqu'aux dents ouais connaissance mais langue français yow loo koy doyee langue français loo koy doyee ah outil la pour nga accéder ci science. mais outil boobu ni nga ci mën naa ni nga mënee jaar ci langue français accéder ci science mais est-ce que olof bi mën nañ ci accéder ci science mais day fekk nga gëm ko. ñu travailler ko. arabe bi mën nañ ci accéder ci science te arabe bi moo ëpp avantage parce que mën nga ci accéder ci science temporelle. Mhm. accéder ci ci science spirituelle. kon logiquement avec quatre-vingt-dix-huit pour cent musulmans bu fekkoon dañuy am benn langue étrangère bu waroon gérer sunu administration arabe la waroon doon te je ne suis pas d'accord même sur ça mais outil boo xamante ni tey ji mën na moo gën a kii pour xeex l'ignorance parce que connaissance lenn moo ko tax jóg mooy xeex ignorance mais booy jàng bu ñu lay bu ñu lay imposer yow ngay jàng benn làkk boo xamante ni yow ci ngay natt sa bopp sénégalais day jàng làkk tubaab ci lay natt boppam yow pour ñun un homme lettré égale un nom intelligent mm-hmm. un intellectuel mm-hmm. mais c'est pas ça mm-hmm. léegi doy na pour loolu pour ah. pour pour loolu arrêté ah, ah. léegi nag ñoom euh, Bassirou Diomaye euh, voyage yi muy def biir Afrique mais loolu moom mooy moom mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci logique euh, souverainisme bi ah mi ngi ci mi ngi mi ngi mi ngi ci logique boobu tu li tax nag demagul fële ba léegi nag ci pays yi nga xamante ni comme ay Mali comme ay Burkina comme yooyu. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji donc yooyu doo xoolee Ousmane Sonko annoncé woon na benn tournée bu mu war a def foofu. Mhm. on va voir parce que tamit euh, réalité yi nekk euh, ci ginnaaw mooy que ni comme ni ñu ko doon waxee sànq. UMOA mhm. boobu Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoo ci ëpp doole. <laughs> Afrique de l'Ouest économiquement. am nañ ay relations yoo xamante ni ci bon boo jëlee nii ci wàllu. Euh, abolisation franc CFA bi. Mhm. donc c'est très logique pour mu dem seeti Alassane Ouattara. Mhm. alors mais euh, justement euh, hmm? Diorin. Hmm? Euh, franc CFA bi. ñu ci bëri jàpp ni du monnaie bu gën ci Sénégal. du monnaie bu gën ci Afrique. Hmm. mais est-ce que jàpp ni ñu déplacé wu ci franc CFA bi dina yombee noonu. du yomb parce que tey jii man laajoon na un professeur euh, euh, économiste la. Mhm. Xarim Bamba Diagne maa ngi koy saluer de passage. Euh, mu ne ma hmm, c'est possible mais am souveraineté monétaire balaa muy mën a am foo nga am autosuffisance mhm. foo nga am autonomie peut-être d'ici deux mille vingt sept wala deux mille vingt huit dina mën a nekk parce que if bu ñu commencé jaay sunu gaz bi ak sunu pétrole bi dinañu am lu doy lu war a mën a parce que nee nañ pour nga am sa monnaie bopp il faut que boo soxlaa boo soxlaa dix nga mhm. mën a am vingt mhm. autonome waaw ah. boo soxlaa dix fekk am nga vingt xam nga da ngay am autosuffisance mhm. nee na ci dimension boobu ngay mën a amee sam parce que su dinga am réserve bu mën a garantir sa monnaie mhm. mais est-ce que jàppoon ni li dal peut-être la Gambie dal la Mauritanie mën nañu dal mm, ñooñu lan moo leen dal parce que la Mauritanie gis nañu seen monnaie euh, diggante import ak exportation aussi ni muy ni muy demee mm-hmm. pourquoi joxoo ma Maroc peut-être c'est un exemple positif mais xam nga comparaison n'est pas raison mais. yaa ngi dégg wax ji parce que loolu moom mooy wax ji. parce que tamit xam nga français yi. Mhm. dafa am benn politique psychologique bu ñuy def. Mhm. wala ñu jël par exemple comme Guinée. Mhm. comprendre nga Guinée ñëpp xam nañ ni Sékou euh, Touré jéemoon na fi créer autosuffisance monétaire kii créer monnaie boppam mais saba français dañ ko saboté yóbbu fa ay faux billets. saboté économie euh, nga dem Mali. moo Modibo Keïta créé woon na fi ne boppam. Mhm. ñu coup d'État ko rey ko. Mhm. que ni da nga naan tey ji bu ñu fi subaa bu subaa bu ñu fi neewoon dañuy jënd ci franc CFA. Mhm. est-ce que France du du du jéem a def ay pexe ngir saboter sunu économie. est que du def pexe pour saboter sunu économie. xam nga mi mi ngi noonu peut-être sécurisation mat sëkk la laaj euh, Diouf. waaw mais xam nga c'est vrai que économiste. donc mënuma ci dugg en profondeur. Mhm. effectivement. Mhm. mais li nga xam ne mun naa ko wax. Mhm. mooy ne dañu nekk ci benn combat générationnel te combat générationnel boobu noonu. ni mu intéressé jeunesse sénégalaise noonu la intéressé jeunesse africaine bi yëpp. mooy lan mooy ne dañ ñoo dundaloo traite négrière. dañ ñoo coloniser. ñu ñëw andil ñu néocolonialisme. dugal ñu ci mondialisation boo xamante ne. ñun dañuy subir mais duñu sax ay acteurs yoo xam ne ay acteurs phares lañu. Mhm. c'est-à-dire déterminé wuñu dara. Mhm. donc bu fekkee ne tey li ma gëm mooy moo ne bokk na ci liy jox réew souveraineté maanaam mu mën a am sañ-sañ yi mën a doxal moom li mu bëgg a doxal te du sukkandiku ci kenn. Mhm. xam ne moo sa moomeel ngay jël di ko doxalee ni mu la neexee. moo ne dafa bokk ci loolu. armée dafa bokk ci loolu. éducation dafa bokk ci loolu. donc man dama jàpp ne. Mhm. l'idéal aurait été au niveau sous-régional ñu mën am une monnaie commune commune boo xam ne dañu ko arrimer. Mhm. au franc CFA. Mhm. mais bu fekkee ne loolu mënta nekk ñun ñu dem vers notre propre monnaie dafay nekk loo xamante ne gëm-gëm la bu bi gëm. ne bokk na ci liy rompre le cordon ombilical. Mhm. entre nous e l'Occident. Mhm. plus particulièrement la France. Mhm. bu fekkee mën nañ ko am au niveau sous-régional moo gën mais bu fekkee ne tey jii nii France da ciy dugalaat loxo bu boobaa dañuy couriraat beneen risque. parce que doon nañ ci wax écho. mais est-ce que est voilà. justement doon nañ ci wax écho. Euh, de Nigéria est-ce que. aussi mais xam nga doon borom xam-xam yi ci bëri de ne appellation bi rek moo changé mais France moo fi nekk ba léegi. et ñun bëgguñu taf yëngal. mais éco boobu éco bi euh, Thomas Sankara ak Macron indi mais bokkut ak éco authentique bi nga xamante ni moom la ñu njëkkoon a euh, construire. Mm-hmm. avec euh, les autres présidents anglophones. Mm-hmm. parce que France ak France moo jaar ci suuf dóor benn coup d'état mook Alassane Ouattara. voilà dem dem sàcc dañu plagiat sax tur bi. plagiat la plagiat la donc loolu moom sama problème yëpp. Uh-huh. nañu demal suñu bopp. Mm-hmm. bokk ko ñi nga xamante ne ñoo bokk histoire ñoo bokk ay réalité ñoo bokk ay gëm-gëm. Mhm. Mhm. bu boobaa. man mën naa d'accord pour que ñu am suñu propre monnaie. Mhm. mais bu fekkee ne soppi tur rek la. amul sens mu jël dix ans. jël vingt ans jël vingt cinq ans. tant que ñu ne mën nañ yegg foofu. jarul ñu di ko tàmbali. parce que du waxu populiste. lu war a mën a nekk la parce que mu ngi ci. projet bi nga xamante ne tey moom la peuple sénégalais voté. donc attendons de voir. ce qui se fera avec nos nouvelles autorités. et je demeure convaincu que ne souveraineté économique boobu noonu kenn du leen ko jàngal parce que ay borom xam-xam lañu en la matière. et après chacun appréciera. am na solo alors bu ñu ñëwee un peu aussi eh, ci tolluwaayu réew mi wax ci actualité euh, dina ñu wax ci la baisse des prix bi nga xamante ni askanu.